fii ci conseil constitutionnel doon déposé si benn recours euh, d' abord ñaari recours la ñuy déposé sax parce que dafa am recours bu njëkk bu ñuy déposé mooy dañuy déposé recours boo xamante ne dafa concerner surplus de parrain et loolu noonu yëpp sénégalais yi gisandoo nañ ko gis nañ ne aussi mandateru u Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ne commission de réception des listes moom moo ko ko defal sur cachet visa expliqué ne indina li nga xamante ne est un surplus de de un surplus de un parrain et qui est relatif à cinquante cinq mille cent vingt huit moom la ñëw indi fii te mu waroon ñëw indi cinquante cinq mille cent vingt sept loolu ñun ñëpp ñun ñoo ko constaté ndoo ba ñu ci paree aussi lu ñu gën a nekk suñu surprise mooy ministre bi nga xam ne moo yore chargé élection yi dafa génne benn arrêté démb arrêté 30 mai 2022 euh, daal di déclarer recevable candidature yi nga xamante ne moom moo concerné euh, Benno Bokk Yaakaar ba ñu jógee aussi itam sukkandiku nañ ci benn communiqué boo xam ne Sénat daf ko génne woon le 13 mai passé ne amul benn benn représentant benn mandataire bu respecté date de dépôt yi nga xamante ne moom lañ déclaré woon pour nga ñëw déposé si sa parrainage ak sa candidature léegi nag loolu dafa bokk si li nga xamante ne mooy vice de procédure parce que tey jii nii bu fekkente ne da nga xool ne li nga xamante ne dafa war a yemb jaar ci légalité jaar ci droit daal di mucc ay normalement loi bi daf fi war a nekkal ñëpp loolu moo tax tey ñu ñëw fii ci juge ci ci conseil constitutionnel mi nga xamante ne moom moo nekk juge constitutionnel moom mooy xool di vérifier régularité opération yëpp ñu ñëw déposer ko di aussi déposer recours bi nga xam ne dañu ci fondé wu di wax ne tamit bu vice de procédure amee ñu jaar noonu annuler liste yi nga xamante ne moo fi am yëpp li nga xamante ne dañ ko sukkandiku ci Sénat sukkandiku aussi ci cachet bi nga xamante ne tey mandataire u Benno Bokk Yaakaar à la personne de Benoît Sambou moom moo ñëw am ko ñu cachel ko ko wan ko ne ko dafa am surplus et que ministre bi tamit tëddul njaaxaanaay en notre grande surprise dafa ñëw génne ab arrêté génne ci arrêté bi ne ñoom mun nañoo dem xool ñi nga xamante ne ñeneen tamit war nañoo mën a dem mu mel ni genre partage de Salomon loolu lañ ñëwoon fii pour déposer moom moo nekkoon fondement yi.